mbokk internet yi ma ngi len di nuyu te di rafetlu bu baax baax ni ngeen di àndee sa suné ak programme 5 TV ñu ñëwaat ak yeen ci tik série euh, Mariama tay mu yëm ak épisode 45 bi ñu door ko ak euh, yaayu Beydi di mère Kumba mom nak woné na ni euh, bañ na Abibatu dëggantaan te dootu ko bëgg lool nak la olof di wax na nit bu xase ba bañ rek bañ na waye nit bu xase ba bëgg itam bëgg na bëgg du bañ waye nak mom woné na bu baax ni bañ moo bañ Abibatu yàggul rek ba mu bëggaat ko ndax batay rek moo ngi continuer di ko xas ak di ko waxal yu bon ndax ki nga xam ni moo di euh, béy di génn bi abibatu génn ci kër gi moom loolu neexu ko waaye mère Kumba euh, moom loolu lu ko neex la ndax loolu moo nekkoon objectif am loolu la yàgg bëgg ñu jàll ci Kalidou Kalidou nag moom euh, du bàyyi benn yoon saa su rek moo ngi xool nan la mën a nekkee ci ay yëfam yu bon ndax tey ji fexe na rek ba kidnappé Mariama juste pour venger wu ci papaam mi nga xam ni moo di papa yu Mariama di ko defal waaye nag loolu terewul mu bëgg a fayantoo ak moom ba tax mu kidnappé Mariama ngir uh, toroxal ko uh, ci loolu nag biige la ci lëkkalool ngir rek uh, mën koo maltraité gis nañu rek yaayam li ñu naan rek xolu yaay si doom mel na ni yëg na li xew ba tax commencé na inquiété wu di woote fu nekk muy loo xam ni nag lu am solo la ndax yaay li muy yëg ci doomam foor na foor boo xam ni doom bu nekkee si jàmm dina ko xam waaye bu nekkee ci safaan itam dina ko xam ñu jàll ci monsieur Obenga moom la bëggoon a xam te mooy ndax doomam juddu woon na wala judduwul ah, ba tax nag mu daal di ñëw euh, ci euh, médecin bi fexe rek ba euh, daal di koy menacer fexe rek ba mu wax ko dëgg bi ngir noonu la ko confirmer lee nekk rek am na doom bu jigéen te it nag doom ji moo ngi dund ba tey jii mu mel ni kon monsieur Obenga moom doom jooju yitteel na ko ndax li muy regretté rek mooy jabar bi nga xam ni ñàkk na ko ba tax nag mu bëgg a dabuwaat lépp ci doom jooju ñu jeexal ak séquence vrai euh, visa euh, kan mooy vrai Kalidou euh, ngir rek ki nga xam ni moo di Bigué daal di lëkkaloo ak moom ngir ñu niwir ko ensemble waaye biige wane na ni moom kenn du ko kii naxee noonu ba tax nag lépp lu mu bëgg xam bëgg na koo xam waaye taxul rek mu daal di tekki Mariama comme ni ko Mariama bëgge woon mu mel ni kon bu Bigué xamee ki nga xam ni moo di Kalidou dëggantaan dina métti trop ci moom ndax yaakaar naa ñaari jigéen fu ñu lëkkaloowee ak pexe jigéen ku nekk xam na ko kon dina métti ki nga xam ni moo di Kalidou leen si yeneen épisode yi waaye laataa boobu woyee leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàttee ba si de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si ngeen jëf et à très bientôt incha allah